wa in yakun bu nekkee maa li nga xam ne adimal faa ñàkk na faaw baat dañoo xadafoon faam su nekkee doon lu ràggug mujj boole ca niki siyatu ji firi maanaam aw melo wu wuteeg melo ya ca desoon wash yu moom mooy xam nga ni ixtilaaful alwaan séri wash yu bu ñu ko waxee mooy séri yoo xam ne comme legos yeeg yooyu nga xam ne day indi couleur yu ñu jaxase léegi siyatu nag wish yun moo doon cosaan ñu xadafoon faaga remplacé ko xaawu taanis ni ñu def ci wi'dun masdaru waada ñu ni idatun siyatun li ñu wuute kale laamam dafa wér kii laamam ràgg nee na comme laam gi dafa ràgg te ñu xadafoon faaga soo koy soo koy def mansuub ilayhi kon fa jabruhu jàng jàng ko te mooy delloo si la nga xadafoon wa fatu ayni ak fata ayin ga ndax mujj ràgg ga nee na kooka day ultusima warlu nañu ko nga ni wise wiyun ah fatxu aynihi mujj ràgg gee tax nga ni wisha wish yun moo doon ci sax nga bàyyi faagi ci kasra ni wi ayin gi su ko noonu wa mujj ga sa topp ràgg tax nga ni wisha su ko defee xarafu ràgg woo mën a soppiku alif boo ko fa bàyyee wisha rek lay doon ndax xal bu alif ga waaw ndax boo ko xal boo yaa kenn du ko mën a tudd ndax yaayee kasra yi nga ni wisha wi yun wuuteeg su fekkoon ni melul na siyatu nga xam ne moom laamam dafa wér ni ki idatun ni ñu def siyatun dong la ñu ko def waaw wala ñu xasaf woon remplacé ko awtaani waaye kooka moom idi yun rek gayo doo fa jekki di delloo si ah kii kii nag moom bu melee ne si yetun fa jabruhoo jànga ba fatu ay ni ultusi ah wal waxid adkur naasiban lil jamci in lam yushaabih waxidan fi nee na soo bëggee askane jëme ci jam mufrad ma ngay andi ci li li nga xam ne mooy mazhabul jumhur waaye doo jël lafz ba noona maanaa muslimunaak muslimiinaak soo boo jamu taksir laak jamu tasxiix ñoo ci yam muslimoona nga def ko aw tur tey turu nit wala turu dëkk jóg askan a jëme ca muslimiyun ngay wax du dëgg du dëgg muslimaanin ba tey muslimiyun ngay wax muslimaatun muslimiyun ngay wax mu am lënt te duñu ko fa duñu ko faale du dëgg loo kutubiyun qiyaasam nga ni kitaabiyun ndax kutub jam'u la rusuliyun rusul soo ko defoon aw tur askan a jëme ca rasuliyun ngay wax mufrad ma ngay andi waaye dooni rusuliyun loolu mooy mazhabul jumhur dégg nga am na ñenn ñu ne nag kon it yunsabu ilayhi ala lafzihi kon amaa ñuy wax kutubiyun ak faraidiyun loolu dañuy xata ula ci arab bi arab du jëfe noonu am na ñu ko daganal ni kon kay bàyyi ko rek faraidiyu nisbatun ila faraid kutubiyu nisbatun ila al kutub awaamu naasi ñoom kutub bi la ñuy wax bàyyiwul kutub kutub bi lañ ko wax waaye nañu kitaab bi lañ ko waroon loolu nag in lam yushaabih ndéem niroowul ak waaxidan kenn fil wat i ca tër ba ndéem jamu bi niroowul ak mufrad ci tër bi su ko defee kon dañu koy bàyyi ca lafz ba rek duñu ko dindi ba tax na sax faraid ñuy wax ilmul faraid faraid dema dema dem ba kenn dootu konte jamo ja aw tur noonu rek la léegi niroo naag waaxid kon bu boobaa ñu naan faraid yi in lam yushaabih waaxidan fi lwadci ndegam jamu bi ni ñu ko tëdde mujjul mel naka benn la niki lan baatu ansaar jamu naasirin ansaaru rasulillahi jamu la woon waaye léegi doone lan saar ba kenn defe ni jamu la dañu defe turu mufrad la ñeel qabila boobu rek du dëgg kon mujj na di kon ansaari yu nga wax waaye doone naasiri yu soo deen askan dootoo andi mufradu cosaan ma ndax ji jamu mufrad rek la nirool ci tëddin bi soo ne lansaar kenn du ci xoolati maanaam jamu ji ci jëkkoon te jamu la woon afaalun jamu naasiri mooy la ni su niroog waaxit ci wat u nag ko kenn du ko delloo ca mufrad ba fa yunsabu ala laf ila lafzihi fa taqulu ansaariyun wa ma a faacilin wa faaalin faacil fi nasabin agna anil yaa fa qubil dégg nga wa failun failun maa failin ànd ak wasnu failin wa faalin ak wasnu faalin yooyu yet ax naa doy na anil yaa i walis yaa fi nasabin ci askan au lieu nga naan au lieu nga naan tey baziyun ci kuy jaay baz kuy jaay piis nga ni bazzaas muy wasnu faal au lieu nga naan tamriyun ci koo xam ni da nga ko askane jëme ci tamru ndax mooy métier kon waxal taamirun booy askan jëme ci jaaykatu soow au lieu nga naan labaniyun waxal laabin ak taamir rek laabinun taamirun wala fa'aalin te ni ki tammaar ak bazzaas jaaykatu piis du dëgg wala fa'ilun ni ki nahirun nisbatun ila nahar ol ya nga ni fulaanun nahariyun nga ni nahirun nag lay lastu bi layliyin walakin ni nahir laa adaluju layla walakin abtakir ah nahirun ay ko jub bëccëg wàllu faa'ilin waaye nee na ca wa garartani wa zaamta annaka laabinun fi sayfi taamir wax na itam daci lmakaarima laa tarxal li bugyatiha waqcud fa innaka anta taacimu alkaasi attaacimu saaxibu taam alkaasi saaxibu alkiswati foofu kooku au lieu mu naan taamiyun ak kisawiyun mu daal di ni taacim alkaasi au lieu mu naan tamriyun ak labaniyun mu ne taabirun taamirun laabinun ah au lieu mu naan bazziyun في نسبة إلى بيع البز معناها بيز غني بزاز ولا غني تمار ولا غني لبان سوكو دافي نك مو واخ مو جال وغير ما وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصر نينا كات xayru ma lu dul loo xam ne qaddamtuhu dawal naa ko ci bunt bii muqarraran muy lu ñu saxal leeral atteya mu bayyanan axkaamuhu lu dul loolu soo ko gisee kooku uqtisara dañuy gàttañ lu minhu ci moom ala alladi yunqalu ca la nga xam ne moom la ñu toxale ci arab yuqtasaru fihi ala samaai lakin laa yuqaasu ala dalik loolu mel na na li ñuy wax nisbatun ila raqabati ñu naan raqabaaniyun te xam nga ni kooku raqabiyun moo qiyaasu woon wala shaar ku bare kawar mi war ko ni shaariyun ñu ne shaaraaniyun raqabaaniyun nisbatun ila raqaba taxtaaniyun nis at ak fawqaani taxtiyun ak fawqiyun mooy qiyaas waaye dañu ne taxtaani ak fawqaani moom dong nga gis ci téere yi dégg nga li azimi raqabati wa shaari wa nisbatun ila fawqi wa taxt wala nisbatun ila dahri ñu war ne dahriyun ñu ne duhriyun soppi mask ak daal ga ci nasab dong kat te mooy nisbatun ila dahri looloo noonu lañ ko déggee ci waxu arab ñu naan duhri mag mu gudd fan lool duhri lañ ko daan nisbatun ila dahri waaye sewaas gi mooy soppi gi ñu soppi baat bi te te waxuñu dahriyun te moo doon xiyaas na dégg nga wala nga askane jëm ci dëkk bu ñu wax marwa au lieu ñu ne marwiyun marawiyun la ñu waroon nisbatun ila marwa dañu waroon ni marawiyun ñu ni marwa ziyun dolli ci zay zay gi fu mu dëkk riy dëkk la boo xam ni bu ñu askanee jëm ca au lieu ñu ni riyawiyun déedéet dañu naan raziyun yooyu yëpp yuqtasaru minhu ala samaai wala yuqaasu alayhi loolu jeex na ko baabul waqf yusuf al waqfu تنوين نسر فتح نجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح نحذفا ودون من احذف حذف التنوين التنوين إثر فتح بدكي تجنا فتح معنى بالدفني اجعل لاني دفل تنوينا تنوين دفك ألفني ألف حال كون التنوين إثر فتح سفكي التنوين أكفتا كو جيتو نكي رأيت زيدا ah ñu ne kon mooy la kalam mulhani waqif ala al mansubi minhu bil alif nga ni raaytu zayda noonu ngay wax ijalhu alifan waqfan mbir mi ngay aji taxaw de ay xaala kawnika waaqifan waxdif xasaf ko nag tilwa gayri fatxin xasafal tanwin tilwa taali tilwa gayri fatxin gudi aji topp ci lu dul fata ba ma kasra nga ni raaytu jaa zayd ak raaytu zayd dégg nga واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار نانا الضمير سو دي تخو دنگا تمو مي ضمير جي داي ورا ام صلة دولك سو دي ضمير جي ام صلة نكي له اك به اك لها سو في تخو احذف حذف الصلة غير الفتح صلة سلود الفتح وودون جوكو تدام نكي له yaa nga doon jokk ci kasra ci bihi da nga leen di dindi nga ni la ak bi qadamu ah rabbi nga taxawal fa sukkoon bu fekkee si la fata alif nga ba ko fa nga ni biha wa duhaaha bàyyi fa alif ga wa ashbahat idan munawwanan nusib fa alifan fi lwaqfi nuunuha qulib baatu idan nag kooku nuuna ca mujj nuuna ca mujj idan koo koy bind ci arabiya du jógee ni da ngay toxal xattul qur'an xanaa arabiya rek la binde ko alif hamza zaal nuun idan noonu la baaxoo ah waaye nag niroo naag mun a wan a nusib ci lafz ndax fataa gi rek a dawlu nuun gu sukkoon gu xafiif topp ca boo nee idan day daal di mel na dëgg lu ñu tanwin la ba tax na loolu andil na ko fa nuunu haa nuunam xuli ba danañu ko xal bu wax fan ci taxaw alifan muy alif soo ca dee taxaw ida ngay wax ndax dafa niroog mun a wanan nusib te loolu boobu nirale moo dem ba ci nuunu tanwin xafiif soo fa de maanaa nuunu tawkit xafiif te mooy lu mel ni idriban kooku moom it noonu la gaa waxoon na ci buntam ni soo fay taxaw na nga ko def alif rek waqfan i kama taqulu fi qifan qifa ida nit nga ni ida loolu nag xëy na mooy xikma saxaaba yi ba ñuy bind alquran idani alquran yëpp ñu binde ko alif gisoo ci alquran benn idan bu ñu def nuun waaye boo génnee alquran dootoo gis idan judul nuun la ñu koy binde ndaxte nag moo doon bindinu cosaan moom la ni wa asbahat niru na idan lu mu niru mu na wanan lu ñu tanwin loo xam ne nusiba dañ ko nasab niru googu lu ñu tanwin tax na fa nuunuhaa nuunam quliba soppi nañu ko alifan fil waqt wa xadfu yal manquusi di tanwini ma lam yunsabaw la min subutin faalama nee na bu dee yaawu manquus te muy borom tanwin ndax laaful maanaam ndax yorul al ni ki qaadin ak raamin yaa u manquus la qaadi ak raami su taarawul nee na boo fay taxaw xadaf yàgg nag mooy gën yàlla moo gën rafet bàyyi ko nga ni marartu bi qaadin dégg ak jaa qaadin nee na nga ni marartu bi qaad jaa al du dégg jaa al jaa raaytu maanaam jaa qaad marartu bi qaad comme qaadin dañ ko daan tanwin amul alif ak laam ndax nakira la nee na kon xadaf ga noonu mooy gën a rafet nga ni maratu bi qaadi ak jaa ak jaa qaadi nee na loolu dagan na sax de waaye rafetul xadafoon ko moo gën a kii dégg nga fekk nasab bu ñu ko suñu ko nasaboon kay nekkee raaytu qaadiyan kooku ni ñu waxoon alif rek dafay taxawe maalam yun sab fekk nasab bu ñu ko bu ñu ko nasabee kay waqafta alayhi bil alif moo gën xadaf gaa gën yàlla subóot ga daal wa xayru di tanwini manqus ma dul borom tanwin ni ki jaa al qaadi raaytu al qaadiya marartu bil qaadi kooku bil aksi moo ne ca safaan kooku saxam moo gën a awlaa moo gën rafet jaa al qaadi bàyyi fa yaaga moo gën marartu bil qaadi du dëgg bàyyi fa yaaga moo gën a jaadu du dëgg amaa bu ñu ko nasabee taxul ñuy wax du dëgg ah moo gën a moom nag kon mooy safaan ba moom bàyyi ko faa gën ah xasaf gi dagan na bu la neexee nga ni jaa al qaad marartu bil qaad waaye rafetul du dëgg dégg nga wa fii naxwu murin luzumu raddil yaqtu baat bu mel ne murin lu mu doon ismu faa'il fu lu doon cosaanu madda bi min ar ru'yati seetal baatu ru'yatu boo xam ne léegi genn raa dong foofu mucc ci xarafi cosaan dëgg ndax mim mi mim mu ñu daam mii dikk ci ismu faa'il ya la maanaa soo bëggee raa gis na nga bëgg koo taadiyaal ni wane na araa ngay wax dégg nga raaytu gis naa araytu wane naa ah lu doon cosaan ar aytu afaaltu raa raaytu mooy faaltu araytu mooy afaaltu ar aytu moo doon cosaan afaala ismu faayilam lu mu doon doon fàtte ngeen ko mufilun kon murun lu doon cosaan muru iyun min ar aytu jooju nga wax araytu xasaf googee ca feel ja bu ma dikk ba ci ismu faayil ji kon muru iyun la woon du dëgg nga xam ni kon man xuus la ni ki qaadi nag raa bi su ko defee la taxoon ñu xadaf aynu baat bi ci raa ci ar aytu ñu naan araa te araa moo doon cosaan loola moo ko topp kon muri mur i moo doon cosaan mur i kasra ga la ñu jox raagi xadaf hamsa ga mu des muri rek léegi kon soo fay taxaw ci muri soo andiwul yaaga laam ga soo ko dellu siwul xanaa ne mur rek waaye loolu ijxaaf la kalima boo xam ne benn xaraf dong ci xarafi cosaan yi moo fa des kon raagi rek a fi des ci cosaani baat mim gi moom xam nga bi mu doonee ismu faayili af'ala dong la fi ñëw loolu nag ijxaaf googu nag lor baat bi lor gu mujj googu nag la ñuy bañ booy taxaw nga delloosi ko moom la ni wa fii naxwi murin ci lépp loo xam ne wenn xarafa des ci xarafi cosaanam kooku uqtufiya xeñtu nañu fa lu suumu raddil yaa i war a delloo si yaaga doon làmbaat faw uqtufiya xeñtu nañu ko kon muri ngay wax du def taanis min muharraki sakinhu aw qif raima taharruki nee na lu dul xaawu taanis ci loo xam ni borom masque la bañ a doon xarafu ràgg maanaam bañ a doon lu sukkoon lu dul xaawu taanis ci loo xam ne mutaxarik la woon sakkin hu nanga ko sukkoon soo fay taxaw borom xaawu taanis nag dégg nga moom dañu koy soppi dañu koy remplacer haa baqaratun nga ni baqara waaye dooni baqarat danañu ci dikk ci lu shaad yi ca am liñ ca dégg ci lu jaarul qiyaas nanga ko sukkoon dul haa utaanis bu dee haa utaanis ah bu dee haa utaanis maanaam ndiki baqaratun kooku moom danga koy maanaam doo taxawee taagatan ko dee jàng di was luy dem taagay jàng waaye booy taxaw moom dangay koy ibdaal haa moo tax sax bu ñu koy bind ci foo ko fekk ci asmaa yi ñaare li ëpp dañu koy bind xaa na nga ko sukkoon sukkoon benn la ci mi lay waqaf aw qif wala nga taxaw fa raima taxarruki mbir mu nga di aji sàkku ji maska ga maanaam raima alxarakati di aji mel ni ku doon dab maska ga di ko sàkku nga indi mooy bi antaatiye bi baadi alxarakati doon al baax maanaam da nga cay indi tuuti xadaf la ca des ñu di ko nattaleeg yow mu indi soon sulusu xaraka ga bàyyi ñaari sulus yi ñu di ko wax rawm ndax dafa mel ni anta taruumu an taatiya bil xarakati kullihi summa taktafi bil baad maanaam xeeti sukkoon juróom yi la bu dul boroom haa u taanis haa u taanis moom ibdaal lay doon da ngay wàcc taaga indi haa aywa beneen bu dul moom nag juróom daje na fa benn nga taxaw ci sukkoon wala ci rawm wala ci ismaam wala ci tadif wala ci naqlu juróom yooyu daal mooy xeeti waqaf mu ne nag lépp loo xam ne mutaxarrik la woon te du xaa utaani sakkin hu sukkoon ko benn aw qif wala nga taxaw fa raima taxarruki di aji sàkku maska rawm rawmu nag maska maanaam damm fata kasra mooy rawm waaw su ko defee yëpp danañu ko def raw bu fekkee ne nag ci arabiya la amma bu dee ci qiraatul quraan ñoom raw mu duñu ko daganal ci lu dul ci dam mbaa kasra waaye daganaluñu ko ci fata ndax fata dafa woyof woyof goo xam ne soo bëggee indi soo ci bëggee indi benn somp bàyyi la ca des moom bu naree dikk tuuti lépp day dikk ñaari moo tax moom duñ ca def raw ñoom ku raaw yi waaye ar ahlul arabiya ñoom daganal nañu raw mu ci ñetti maske yi dégg nga ñaara googu wax nañu sukkoon wala raw aw asmami dammata wala nga li ñuy def li ñuy wax ismaam ismaam gaa foona rek lay firi ci ku doon firi luxa waaye bu dee fii leneen lan ci jub ismaam mooy da ngay mel ni ku taxawe sukkoon ba yeggal yëkkati say tuñ ku la seen defe ne ak dàmm nga tudd fekk ni ñuy tudde dàmm nga def say tuñ waaye fekk na tudd nga taxawe nga fekk na sukkoon nga baat moom la ibnu bari ni wa sifatul wa sifatul ismaami itbaaq shifa ala sukkooni wa darir la yara nee na mooy li nga sukkoonee nga def nii say tuñ mel ni ku ni ah, boo nee tey nasalal mataru nga ni nasalal matar seetal ar laa wax waaye boo ma séenee sama tuñ da ngay defee ni wax naa ni ru ndax tuñ yi dafa jóg loolu kat mooy ismaam loolu nag ci dàmm mbaa kasra déedéet ah maanaam ci dàmm nga koy def laan wa sifatul ismaami itbaaqu shifah ala sukuni wa dariru la yaraha lan nga ne nasalal matar aw ashmim wala nga ismaam dàmm dàmm la ñuy def ismaam mooy ni nga koy da ngay tudd sukkoon yëkkati say daal tuñ mu- ke- keneen a gumba du ko man gis maanaam gumba du ko man gis mooy bi maanaa lismaam amul baat booy dégg yow sukkoon rek nga dégg waaye kon ci melaw yi nag nga yëkkati say tuñ loolu ku gumba moom dootu xam da ngaa ismaam wala déet ndax sukkoon kii gis nag bu la xoolee xam ni def nga ismaam dégg nga ni nu wax loolu mooy ismaam nasala ba ma ci xool nga koy xamee ci tuñu kii wax waaye doo ko xam ci wax ndax sukkoon ngay dégg aw ashmimi dammata bi an taqifa ala sukuni wa tarfau shafatayka ka annaka tantiqu bi damma loolu mooy ismaam ci dàmm rek lay am aw qif mbaa nga taxaw mud'ifan di aji ful ful xaraf wa ni ki nasalal mataru nga ni nasalal matar kon sadda nga raag looloo xeetu taxawin la waaye loo looy tadif nag du yëpp araf de maa lay sa hamsan lu dul hamsa hamsa diis na diis goo xam ne te buñ ko sukkoonee mu gën a diis boo ko dee tadif sukkoon ngay jëkk an tadif fokk mu ànd ak sukkoon sadda sadda sukkoon lay doon kon bu dee hamsa moom kenn du ko kenn du ko tadif ndax da li siddati si xal xam nga hamsa moo gën a diis xaraf yëpp kon nag ka di ko sadda te mu tadif mooy sadda kenn du ko sadda kon nag na fekk du hamsa aw alilan du xarafu ràgg itam bu muy xarafu ràgg lu mel ni jaa alqaadi yi kenn du sadda yàgg ci tadif waaw bu dul hamsa du lu ràgg beneen sart ci tadif mooy inqafa ndegam dafa topp muharrakan lu ñu maas su toppee ci sukkoon kenn du ko tadif du dëgg lu mel ni ki lu mel ni ki ah, qadrun wala nasru ah kenn du ta- tax mën nga taxawee ci raagi sukkoon dégg nga mën nga ca taxawee lismaam de bu fekkee dàmm la wala rawm waaye nag mënoo faa taxawee ah, tadif ndaxte sukkoon a daw nas soo ci bëggoon teg raagu ñu sàdd doo ko mën moo tax mu ni in xa in xafaa ndeem topp na muharrakan mu des benn naqlu waqfu bi naqlu lu moo des kooku nag mu ne wa xarakatin inqula li saakinin taxrikuhu la ñu wanqulil xarakat su fekkee maske yi nga xam ne mooy dam fata kasra ñetti maske yëpp des na leen des na toxal dam des na fat toxal fata def na taxal kasra amma dam ak kasra moom amul benn wax amma fata nag naqloom danañ ci dëkk wax ci madhabu basra ak madhabu kuufa moo da wan qul toxalal ci sa waqaf xarakaatin ay xaraka ñett yëpp li saakinin de jëme ko ci sukkoon goo xam ne da ko dawlu woon goo xam ne tax ni ki bis sabri nga ni wa tawaasaw bis sabir gis nga kasak raaga nga toxal jox sukkoon gu wér gi ko dawlu woon li saakin ñeel aji sukkoon joo xam ne taxriikuhoo maasan lan yoxdara dee su ko tere ni ki misaalum bis sabir baa moom manees na ko maas ah manees na ko maas lu dëgg su fekkee qadrun la man nga ne qadur toxal dàmmu raaga indi ci xaaf gi ko dafay mujj sukkoon waaye nag loo xam ne taxriikuhu maasam lañ yoxdara dee su ko tere maanaa yumkinu taxriikuhu wuteeg alif lu mel ni ki insaanun jaa insanun dàmm googu mënoo koo tox di jox alif alif nanguwul xaraka wala muy xarafu ràgg waaw wala yaa kooku da day diis gann mooy tax lu mel ni ki yukadibuuni nga bëggoon a toxal kasra gi jox waaw wow saakin la waaye te taxrikam itam tereesu ko lan yu maanaam xayru xayru maxdur yumkin walakinahu thaqilun jiddan moo tax kon bon daal bu muy alif ndax li ndax taazur bu muy waaw ak yaa li siqal bu dee leneen nag nga mën koo toxal ma ni woon nag xarakaat yëpp la wax aywa waaye nag nu wax ci mazhabu kufa nu wax ni fata moom kufa ak basra wuute nañ ci waa kuufa ñoom danañu ko toxal maanaa taallamtu al ilma bu dee waa kuufa ñoom danañu ko daganal nga ne taallamtu al ilam fataag mi ma toxal nga ko andi laam gu sukkoon gi nga xam ne taxriikam xayru mamnu bu dee waa basra nag duñu ko def lu tax te mu jàppandi da cay am mansuub su dul su melul ni al ilma nga xam ne dafay muarraf bi al xanaa doon nakiraf ni ki yow mu ni taallamtu ilman bi tanwin alifu tanwin googu soo naqloo yalzamu minhu xadfuhu kon fokk alifu tanwin gi da nga koy dindi taallamtu ilman su dee waa mazhabu basra ñoom ñu ni taallamtu ilam ndax fataa la woon wàcc nañu kon xarif ga loolu nag la waa ko basra bañ waa kuufa nag daganal nañ bu fekkoon raaytu bakran waa kuufa daganal nañ nga ne raaytu bakar dégg nga xasab alifu tanwin waa basra nangu wuñu ko waaw lu tee ñu nangu ko nag ci lu mel ni taallamtul ilma ndax moom amul woon ta- alifu tanwin ñu ni maanaam li yajriyal baabu ala sananin waxid comme fataa la rek ñu bañ a am fataa gu ñuy naqlu geneen fataa gu ñu dul naqlu ñu faf bàyyi fataa ñoom rek bu dee fataa duñu ko tax ñoom itam ci fan bu dul hamsa dee su hamsa tax na ñoom lu mel ni yuxrijul xaba fi samawaati wal ard ñoom ñëpp danañu ko naqlu waa basra dagal nañu nga ne yuxrijul xaba dégg kooku moom ndax soo ko deful bëgg a sukkoon day diis lool ba jéggi daye sukkoon hamsa gi rawatina bi ko sukkoon da daje daje dawloo soo bëggoon ni kooku moom d'accord nañ ci ñoo waa ko fa